yàlla boole nu ko nun ñëpp lanu ko yàlla boole la yàlla defar yépp la defar yëpp tubarkalla tubarkalla ah kon it bu baax de kon it mu baax de te nu bokk ko nag tubarkalla wallaay te nu wallaay wallaay wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan waaw waaw lu leen lu ngeen def rekk day jox nañ leen ci lu ngeen lu ngeen def rekk jox nañ leen ci ndigal la amin yaa rabbal alamin ah ah xam naa lii lii jaaxir wax de eh, ci téereem bii nee na eh, song ba mu song xam-xam dañu ni ko nag doo gudd fan mu ne waaye kon lu ma ci am mu doy ñu ni ko doo gudd fan mu ne lu ma ci am mu doy ñu ni ko doo gudd fan mu ne lu ma ci am doy ñu ne ko sa baay du boroom barke mu ne waaye rekk lu ma ca mu dal ndeysaan nekk ca nekk ca nekk ca nekk ca nekk ca tabarka la bari jom te nit ku ñuul la ba am ci juróom-ñeent fukki at ak juróom-benn mu ne léegi nag bu ma yàlla jëlee it baax na juróom-ñeent fukki at ak juróom-benn baax la tabarka la tabarka la téeméeri téere ak nangam ba machine amagul nga bindal ko sa bopp loolu ca la mayu yàlla yem loolu ca la mayu yàlla yem pour wax la rekk ni ñoom desaluñu dara lu ne tudd nañ ko tabarkalla tabarkalla lu nekk lu nekk lu nekk tudd nañ ko mel ni nag Alaaji Usmaan Kan moo ko daan tiitaroo ba waxee mu ni jaaxit mooy sunu maam piir ma ni ko ay ca bokk wallaay ndeysaan waxtu ne daf ko daan wax tabarkalla tabarkalla la mel ni doomu soxna moom yitteem lu mu ca def rekk ñu xeeb ko góor ak jigéen nag mag ak ndaw yëpp a ci yam tabarkal la tabarkal la damay dema dem ba damay sàlli sax ndax rekk yëg yëg sama barke sëriñ wallaay ndeysaan wallaay naa ci dem ba saalit ba saalit wallaay ndeysaan ndax yëg barkee mag ni ma njabootam yëge mm-hmm. tabarkal la ni ma njabootam yëge tabarkal la tabarkalla la yàlla jëm kanam wallaay ndeysaan dañ may yëg tabarkalla tabarkalla xam naa ni moo yëg ni yëg naa ko mu yëg loo leen ma waaw loolu rekk la du leen waaw yàlla xam na ko hmm. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan am doo xam sax lan la tabarkal tabarkal tabarkal yéen la jëm kanam tabarkal la tabarkal ndeysaan jëm kanam yéen la jëm kanam tabarkal tabarkal yàlla aar leen aar leen يلا تخول تخول تخول تبركل تبركل نقول يلا دف أمين تنو بوكو تبركل والله أمين أمين أمين أمين أمين يا رب العزة آه بيجي تولوك نك أمتا وسطا أمتا وسطا دي موم piir euh, maa ngi koy waxtaan ak sama benn mbokk bu jóge Mali ni ma ca weer yële dañoo mujj jël rekk ay mesures delloo ko ci ummatan wasatan ba fecc yi sax dañ ko limité léegi am na ci xeetu pecc yoo xam ne dañ ko fa tere bil kulliyati ndax dafa ëpp waaw ba feccee nga fecc ndànk rekk waaw du wàññiwul dara waaw nga fecc ndànk rek waaw def ko bu yema yema yema yema waaw yema yema yema yema yema yem rek ndeysaan waaye benn bi daal moom dafa dafay tax sa personnalité danga koy ñàkk te baaxul nag baaxul nag te itam rek it jar na bàyyi xel ndax itam rek ummatan wasatan ummatan wasatan looy def rek nga def ko ak sago nga def ko ndànk rek bañ a ëppal walaay ndeysaan ndànk ndànk rek ndànk ndànk rek du te àgg fa nga jëm du te àgg fa nga jëm waaye bu fekkee ëpp na ëpp na ëpp na waaye waaye kenn mënu ci dara kenn mënu ci dara Sidil Hadj Malick radiyallahu taala anhu loolu taxoon mu gedd dem dëkkaale ak yonent bi dem ba foofu fekk foofu mel ni fii mu ñibbisi waaw mu dal di ñibbisi mën loo ci dara ba tax na kon nag kenn xamul lan la kenn xamu ko moom daal daf daan wax ne rek yeneen yàlla musal moom la daan wax pire Euh, mujj dundam dafa mere ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp dafa mujj mere ñëpp ndax bëggoon rek kenn ku ne rek euh, ummatan wasatan ja nga respecté ko waaw euh, fexe ba rekk yem yemale yëf yi yemale ko yemale ko tabarkalla tabarkalla daf ko ummatan wasatan rek mu gën a baax waaye lu ko moy rekk li ci des ah waaye wa qalilum min day axirin ndeysaan sunu boroom ma ko wax yonent bi piir yonent bi wax ci làmmiñam ni ah, maa ngi koy waxtaan ak ma Madike Ñaŋ mii ah, ma ni ko yonent bi nee moom minoritaire la dans majorité mu ni ma euh, formulu démocratie la bu kenn mësula wax formulu démocratie la bu kenn mësula wax ci kaw suuf nekk minoritaire dans dans ta propre majorité mu ni ma fa la démocratie yam loolu yonent bi rekk moo tax yàlla ni ko nag a ah, mu ngoog kit nag ñëpp du ñu mën a rekk tabarkal la tabarkal la waaye rek kit du teen nu wax waaw du teen nu wax rekk def ko ndànk rek ndànk ko rek ndànk ko rek ndànk ko rek ndànk ko rek te it tolérance it baax na ndànk ko tolérance baax na ndànk ko tolérance baax na wax naa leen ni bërki démb rek laa koy àttee moom daal danoo mujj jaaxle jaaxle ba nga ni lii lu mu doon tolérance daal baax na bërki démb bërki démb lañ ko yàtte man mii maa ko doon àtte yooyu dama koy yàtte tabarkal la ndax dama di ndaw rek tubaab yi nekk fi may wër kaw gi fu ma dégg ni chef de canton baa nga xew la dara ma dem déglu ji ba xam lu fa xew euh, tabarkalla tubaab yi eh, eh, seen jàng baax na waaye di ko raxe tuuti ak yëfu yonent bi baax na de boobu daal moom dara gënu ko li sunu maam yu baax yi maam Serigne tubaab fii maam Sidil Hadj Malick fii ñu wax ni eh, ñépp ci wanagu yonent bi la ñu mucc kon nag bu ñu yaboo rek waajal leen waaw bu ñu yaboo rek waajal leen benn yoon moo gën a baax bu ko defee rek ku ci bëgg baax ah rek it nu dimbale la dimbalenteeg yow ba yàlla baaxal la waaye gis nga ummatan wasatan daal moom daal bañ a ëppal daal baax na de daal moom baax na ma ko bañ a daal moom daal jar nañu seet ndeysaan maa ngi dem booba ca yooyu jamono booba ndaw lañu ba mu ëpp booba bu ñu jàngul lii ba dégg làmb xam ngeen làmbu làmbu mbappat làmbu mbappat waaw lu ni jàngul ñu tey ñu ngay dem ci làmbu mbappat te xam nga làmbu mbappat ma nga ca àll ba euh, nu am sunu mbër nag mu jóge ci daara ji ñu di ko Cheikh Dieng sëñ Babacar daf ko soppoon lool Cheikh Dieng ndax dafa sawar ci service su sëñ Babacar Si euh, nu ne ko kaay nag mësuloo sax bëre waaye tey yaay sunu mbër nu ngemb la rek yóbbu la ca euh, mbapat ja waaw ni sunu mbër a ngi walaay ndeysaan yàlla àtte nag kam fa dajal soxor lool moom daal waay ndeysaan nun daal dina mujj sunu xol bi tàng jërër waaw walaay ndeysaan dañu mujj ci guddi gi dem wuti salaan salaan wallaay ndeysaan jox wuti salaan rek jox ko di ko ko rëppal nii ci ci doom bu tàng bi waaw mu di ko matt waaw waaw wallaay ndeysaan ba nu ko moom daal bu nu yeboo rek foofu xam ne ci daara ji rek la nu nu foofu féete ci daara ji waaye daal mbëri làmb yi ni ñu soxore wallaay ndeysaan kenn bu ko defee nag euh, bu ñu bu ñu dóoree ndënd yi ñu ni dafa am ku jaan màtt jaan màtt nangam nangam ndeysaan soxna sukkan daal di jël séer ba rek ana yi ñu ni dem nañ ca mbappat mu jël séer ba teg ci boppam nañ ma woon fu mbappat bi ne ndeysaan ndax xamul jaan ji ku mu màtt wallaay ndeysaan euh, bu ko defee mu topp noonu àll bi rek ñëw benn bés nag ma dem ci benn pinc fekk fa chef ba ma ngay àtte ndeke tubaab yi tubaab daal ni ñu kàccoore ndeke dañuy jàngal nit ñi nu ñuy ragale nu ñuy ragale nit wallaay ndeysaan euh, chef ba Fall la sant waaw waaye ma nga naan ma nga naan ma nga naan bàyyi moor mu ne ah, maa ko dégg keroog ah, dama jaaxle sax mujj na ma toog ba may moor génn ma di ko laaj ñaataat nga mu ne ma am naa juróom-ñeent fukki at ndeysaan eh, mu ne ko bàyyi moor bàyyi moor mu ne ko am ah, mu ne ko naa dagg sa gàtt kat mu ne ko xanaa woowuma la mu ne ko mu ne ko ndaxam maa ngi ñu këde damay mag rek wallaay ma ne lii de Shakespeare waroon na ko fekke kenn mësu ko gis bàyyi moor bàyyi moor kenn mësu ko dégg waaw kenn mësu eh, xanaa woowuma la mu ne ndaxam maa ngi ñukki mag rek wallaay ma dégg ko jaaxle ci lool bayiku bu mu génn ca dëkk ba mën ko ñaataat nga mu nu am na